jour bi ay chef tukulóor Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao. Le 5 juillet, fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda Naar sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khady Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dian parrain ba Djilignan Rosa Zaher restaurant La Saint-Louisienne PDG ba de Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Te Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta les astuces de Ramitag PDG Ramathoun alimentation Mam DG ba di euh, soxna Aram kër-këri dag dagi waaw waaw du wadi borom kër Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272. 4 3 jëf internet yu Dakar Live Alburaax TV mbokk yi bëggati nañ di jàkkaarloo ak yéen dellusiwaat ak yéen ci suñu xarit boo xam ne xam ngeen ko ci réseaux sociaux yi à travers liggéeyam bi nga xam ne moom lay def nekk ci professionnel. Zal Touré tey mbokk yi moom la ñu seet si ñu ngi nag see Ketchup xam ngeen bu see moom suñu waay la souvent ñu jaar fi tasa fekk yi waxtaan mais Zal dafa def benn vidéo barki démb. ci soirée Wally bi passé Médina mu bari nag ay révélation bari ñu ci génn tontu lan moo tax mu def ko lan la sentir wala lan la gis ba tax mu def sortie boobu bëgg nañ ci waxtaan ak moom mais ñu nuyu ko dugg ak moom ci biir waxtaan yi Zal ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Albourakh Dakar Live Mbaye maa ngi lay siyaar maa ngi lay nuyu bu baax mon ami mon frère maa ngi lay jox sa wàccuwaay di siyaar sama gars yu tedd yi nga nekkal ñoom ñëpp maa leen di béggee di niyaar euh, ziar waa Albourakh ak waa Dakar Live Euh, di siyaar seen auditeurs yëpp ak seen auditrices yi di siyaar tamit un ami un frère di ko ñaanal yàlla réussite muy suñu frère bi ñu nekk ci place am muy Bousse vraiment jàmbaar la te jàmbaar weesuwul tey dem ci àll bi wuti sa alal ñëw sa biir réew këpp ko fi donc ngir jàppale say doomu réew bu dee juróomi nit sax nga employé leen teg fi leen fay loolu développement réew def naa ni la fa la tàmbalee ñu ngi koy ñaanal place am bi yàlla na ko ci yàlla defal jàmm defal ko ci réussite ba li ñu ci bëgg lépp yàlla oyofal ko ko di ñaanal koo xam ni tamit vraiment Euh, natt bi ko dal métti na te ñun ñëpp ko bokk. mu nekk un frère un jeune yi muy la de Guiers numéro 2. kon ma koy ñaanal yàlla fi mu nekk. yàlla na ko fa yàlla génnee ci nu mu gën a gaawee moo képp koo xam ni ñoo bokk nattu yi leen dal nekkandoo fa yàlla teggil leen ko ba ñu delluwaat ci askan wi. waaye di béggeewaat ñëpp it. di wax tamit benn message boo xam ne damay profité ñu déparé ko. muy sénégalais yi nekk Europe. nañu préparé le 29 juin. le 29 juin Sidi Diop. xam ne loolu dañ ko waroon mujjee mais li tax ma njëkkee ko. mooy que kii dem dafa porter drapeau Sénégal portel ko Sénégal yor drapeau boo xam ne tey li muy wuti ndam la boo xam ne bu ñëwee ñun ñëpp koy bokk bu ko réussir kon ma koy ñaanal moom Sidi Zénith am bii le 29 juin li nga xam ne la ci séntu muy ndam ànd koog son euh, manager di léppam di kilifaam di sama xarit di sama frère de sang muy Matar Diop Subatel ndam liñ ciy séntu ji si Zénith bi yàlla na ko yàlla oyofal ñu porter drapeau bi am fa ndam indi ko Sénégal la guerre continuer jàmm am incha allahu rabbi jaajëf am na solo Zénith bi ni nga ko waxee Sénégal ñu ngi koy waaj bitim réew ñu ngi koy waaj di Diop na ko ñëpp jàppale mu dem daan Zénith jàll Bercy ak yeneeni saal ah man na ko te ki mu àndal gaynde la muy suba Subateel am na nu ci yaakaar macha allah ah, lépp jaar ci yoon yàlla nu ci yàlla yóbbu mu ànd ak yooyu sit ñëpp ñu ngi koy waaj ba ba léegi yéen a ngi gis site internet yi ci communication bi ñu ngi ciy jàpp macha allah ànd ak Matar Subateel mais ci TikTok bi vidéo daal coow li bari hmm? ñëpp ne Zal Touré dafa attaqué garde corps yu Wally Seck am na benn action bu ñu gis nag ci kaw chaîne bi am ko tëb dal ci Wally nga def ci ay révélation lan moo waral waaw loolu li ko waral mooy li muy am daa bari li muy am dafa bari te bu fekkee dañoo nekk ci dëkk ñu bëgg dëkk bi développé ñu ne lépp dañoo bëgg mu changé bëgg lépp jaar ci yoon kenn ku ci nekk tey am nga droit boo gisee loo xam ni day gaañ te mu leer la du yow kese yaa ko gis Sénégal ñi ngi ko bokkal ñëpp a ko gis àdduna ñi ngi ko bokkal ñëpp a ciy teg seen bët te tey ñi ngi ci biir mbedd yi di ko waxtaanee ñi ngi ci biir place yi di ko waxtaanee nit ñaa ngi ci biir oto yi sax di ko waxtaanee muy ñàkk waa sécurité gu waali ñàkk sécurité dëgg la yàlla rek moo mën a aar yàlla kese moo mën a aar jaam parce que ñun ñi nga xam ne sax loolu suñu métier la ñu jàng ko dañ koo jàng rek pour simulation mais ki nga xam ni moo ci suturaal jàmm muy suñu borom moom rek moo ñu ciy suturaal d'accord mais nag nit dafa loo xam ni ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla moom mi nga xam ni mooy lépp ki nga nekkal mu jël la tegle ci wetam di la fay ngir nga yor sécurité ginnaaw yàlla yow yaa yaay yow yaa koy aar yaa yor kaaraangeen yor bakkanam yor dundam ba keroog nga koy delloowaat ak njabootam léegi nag loolu ñi ngi ko bokkal defandool xam ni lii métier la boo xam ne dañ koy jàng ba mokkal ko soog cee dugg ma jàng ko comme ñoom niñ ko xamee dund ko comme ñoom niñ ko dundee ba pare gën leen sax bëgg waali mi ñu nekkal ñoom man maa leen ko gën a bëgg. ah bon barki Cheikh Rafal man waali toujours li may wax dafa leer dund ma ak moom ci ay way damay dund ak moom en tant mbokk mbokku mbokku taalibe dund ak moom en tant que frère dund ak moom en tant que koo xam ne dafay jàpp ci développement wu Sénégal. man tey ci boppam bu ma gisoon loo xam ni musiba la yàlla bu mu am ci àdduna moo jëm ci seen kaw ñoom ñi nekk ak waali ñëpp man maay njëkk a jóg ñaata at laa fi jóg di xeexal waali te musumaa dem biir këram seeti ko benn yoon laa fa mos a dugg muy keroog anniversaire am te barki Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ni ko ñëpp bëggee laa ko bëggee fi ñëpp toll ci moom laa ko laa toll ci moom li ko ñëpp yéene laa ko yéene kon tey bu ma gisee loo xam ni erreur la te mi ngi raam jëm ci ñag bi am naa droit wax ko sécurité bi defuñu seen liggéey ni mu waree suñ ko defoon ni mu waree bëtt yooyu du am amaat amati amati amati te ba tey nañ dox ba ci kanam diñ ko gisaat yeneen barke alxuraan ñoom dañu nekkul ay professionnel wala lan la no mais xam nga professionnel du ay wax application la professionnel application la am na foo xam ne bu ñu fa tollo c'est pas c'est pas c'est pas que euh, yow yaay commandé mais c'est le terrain qui commande métier boo ko jàngee mu mook terrain bi di commandé li terrain bi commandé dañ nga ciy nekk xam nga terrain boobu lu muy commandé terrain Wally mooy concentré wu ci Wally focus ci moom parce que sénégalais yi dañ ko bëgg def ko oor mu représenté ñu fu nekk taxawal musique gu Sénégal ci biir teraanga boobu yàlla di ko ci jox ay teraanga mu ciy teral ay nit am ñu wékku ci moom yaakaar ko teg ci mu nekk ci terrain boo xam ne tey nii ma ko defee ci Wally suba bu daloon Pape Diouf noonu laa koy defee ci moom suba bu daloon Sidi Diop laa koy defee ci moom parce que man je suis là pour toutes mais dama ne sécurité Wally bi nañu gën a defaruwaat te gën a focus ci Wally te xam ni produit bi ñu yor ñoom moomuñu ko dañ ko dénk nañu aaruwaat jaajuwaat takkuwaat te concentré wu ci Wally te xam ni Wally mi ñuy garde yàlla moo koy aar dëgg la yàlla seetaanu ko ay waajuram seetaanu ko comme ñëpp mais nag dafa am loo xam ni ñoom seen rôle la kon nañ ci concentré wu ne ci. li may mooy lan moo tax muy am di répété wu. gis nan ko am na vidéo yoo dugal du benn du ñaar du ñett muy répété wu te toujours la même chose façon boobu lay demee kenn mooy jékki-jékki naaw rek bëtt dugg ci kaw seen bi dina dem ba àgg ci moom te sécurité bi duñ ko téye te loolu ci Wally rek lañ koy gis si at waaw xam léegi xam nga dégg naa am Amdy Amdy moom mu wax ni non damay wax man maay wax Amdy naa ci ñëw non non mais dama koy wax ah dinaa ci ñëw tontu ma moom dafa neex moom dama ko xiif daa xiif am mais dinaa xiif xam nga ko dafa wax joxar bi. damay wax delloo ko. dinañ ci ñëw ñoom ñëpp mais dama ne. professionnalisme. nit mën naa jàng métier am ba man ko. mais chaque jour ay erreur di ko ci dal du ko réussir. mbay dafa loo xam ni bu répété woo. répété wu waat. répété wu waat. su boobaa professionnalisme dafay réer amatul. te lii dafa répété wu répété wu répété wu waat. ma teg ci bët yéen ngeen teg ci bët sénégalais yi di ma seedaan teg ci bët. bi ma ko waxee. bu dee sénégalais yi 17 millions lañ. 10 millions yëpp a apprécié wax ni xam wax li ma wax dëgg la. kon nag léegi loolu message la boo xam ne ñoom war nañ cee jàngaat ni bu ñu jàngoon métier bi sans nañ delluwaat jaajuwaat jàngiwaat ko te xam ni doyul. d' accord naa 10 personnes bu ñu yoree waali waali jëm ci concert de 1000 personnes personnes concert avant ngay nekk ci concert bi avant ngay jot seen bi mais ay barrières la ñuy njëkk a def dafa mel ni fii ñu toog podium baa ngi nii. lee ñuul ne lépp ay barrière la nit ñi ci ginnaaw barrière yi la ñuy taxaw sécurité bi ñooy nekk ci diggante podium bi ak barrière bi waa léegi nit ki mën a tëb ci barrière bi fële jëm si ci podium bi ana ki mu romb diggante podium bi ak barrière bi kon bu ñu wax naan ay euh, affaire bi mënuñu ko gérer dama ne waaw mais loolu ñu loolu ñu koy wax xañ na ñoo ko dund ak ñoom mais dama ne ñi koy wax dama ne ñi koy wax ñoom xañ na ñoom loolu lañ dund ak ñoom mais man li ma gis jàng ko mën ko muy sama métier Sénégal ku ma xam xam ma ci laa ne dafa am faay ci ci staffu Wally muy sécurité rapproché amu ci amul bu dëgër bu fane li may wax nag je pèse bien mes mots dama ne Wally na renforcer waat sécurité am bu baax na renforcer waat sécurité am li ma wax nii nag bari na ñoo xamante ni si tey jàng nañ métier bi ma jàng bu ñu toogee seen dox faay yi ma gis ba tax ma wax ko ñoom suñu mënoon wax de plus dañ koy wax ñoom ña fa nekk ma wax lii ñun yor wàllu woowu xam nañ ni lii Zal Touré wax dëgg la xooluma nag ku ma ci mere ko ci kontaan de toute façon li ma ci bëgg man wax ko muy message bi ma bëggoon mu jàll jàll na kon ñoom li leen war mooy defaruwaat xoolaat nan la ñuy organiser wu ñoom ci seen biir te bëggante nag ñoom pour mën a am di liggéeyal waal yi yaa ah da nga jàpp ne ñoom ci seen biir ànduñu moo tax yenn fay yi dama ne c'est l'union kii fait la différence ñoom suñu àndoon ni ñu war a àndee déggoo ni ñu war a déggoo déggalante ni ñu war a déggalante faay yooyu donte day am bu dee cinq ci lay yam mais nañu war a àndee àndee wuñ ko nañu war a déggalante déggantante wuñ ko nañu wax ne joxante cër ñoom ci seen biir sécurité bi nag laa waxal joxante ko cër moo tax faay yu bari yu mel noonu di leen arrivé te suma sañoon tey ñoom ak Wally dañuy ànd à vie nekk à vie parce que métier la bu ñu jàng mën ko di ko def yàlla dogal ñu mën ko di ko def mais nag ci biir mën gi di ko def dafa am loo xam ni moo jiitu d'abord muy ñoom sécurité Wally ñu fexee doon benn say pour que kenn ki ñu nekkal ñu xam ni ruu la nit la boo xam ni jamaa la dañ ko war a protéger normal léegi nag bul concentré wu ci cadre Wally sama xarit la sama mbokk la wala dama koo bëgg ba pare soog koo nangam déedéet mbay su ma ànd ak yow nga jox ma sa kaaraange donte mënu ma laa aar yàlla mën a aar xàmmeewu ma yaay xàmmeewu ma mbokk xàmmeewu ma fans sama liggéey laay def bañu ma nga mere ma parce que li tax nga may fay mooy li may def kon li may def du ma la ci déglu parce que yaa ma wóolu ba teg ma fi centaine de personne fi jàng sécurité ëpp nañ ko ay millions de millions de sénégalais ay jeunes tey bu ñu bàyyee ñoo ñëpp jël leen ñoom teg leen waali jël leen choisiral leen boppam teg leen ci wetam li leen war mooy concentré wu ci wàll te bañ a xàmmee dërëmu kenn ak ñaari junniy kenn bañ a xàmmee daraay kenn focus ci li nga xam ni moo leen ñor bu ñu paree nekk ca la ñu war a ne. man loolu laa tax ñoom ñëpp ñu bokk benn benn objectif muy waali ñu war ko aar te jubóowuñu ci seen biir. loolu ah, mais li may wax ni dama ko xam te ñoom ñoo ma ko gën a xam. mën nañoo ànd nag ñoom. cérémonie jot ñu àndandoo doon benn cérémonie jot ñu nekkandoo ñoom ñëpp. mais dama ne déggalante bi war ci seen biir commandement bi war a dox ba tax ñoom ñu war a concentré wu gérer con focus ci Wally amul ci seen biir parce que ku ci nekk da nga am say nitu bopp ku ci nekk da nga am sa équipe bu bopp ci seen biir ñoom te léegi loolu doxalul seen liggéey eh dama ne la mbay barki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul man maa leen gën a bëgg waali ñoom mille fois te saa su bari na ci ñoom lu ñuy xewle dañ may gis damay ñëw volontairement jàppale leen ci seen liggéey pare ñibbi te xaaruma ci benn dërëm njaga euro musuma taxaw ne ko defal man nangam fay ma kase du kenn ci ñoom staff Wally ku ma mës a taxawal ne ko fay ma kase te saa bu ñu xewlee damay ñëw à ma propre man moyen ak samay engagement wu bopp ñëw jàppale leen ci seen service ba mu jeex dem ñibbi kon man ñoom bu ñu bëggee waali benn maa leen ko gën a bëgg mille. def vidéo bi ko bu baax euh, pour yow ban solution la ci Wally mën a jël en tant que professionnalisé professionnel ci métier bi est-ce que du euh, kilifa sécurité Wally bi moo war a defaraat gars yi corriger leen wala ñu dem ñu jàngi métier bi soit ñu renforcer waat pour yow la mooy solution ba pare. Euh, première solution bi mooy yow boo demee staff Wally sécurité bi yëpp bu ñu taxawee ñoom ñëpp. bu ñu taxawee doo xam kan mooy chef. non mais attends am di tamit chef la. jeex na. <laughs> non attends non attends cinq chef six chef sept mënul nekk. Ah, faaw kenn mooy jiitu diriger ñi ci des topp ci. li ma lay wax nii daal dama ne. man logique bi ma lay wax mooy. ñoom ñëpp bu cérémonie amee. bu cérémonie amee. ñoom ñëpp taxaw war a gérer. kenn ku ci nekk sa xelum bopp dalaa doy. moo tax yu bari di leen arrivé. lii ma leen di wax nag du loo xam ni dama leen dama leen mere. waaw mais déet. yow yaay chef protocole bu ñuy jóg créer leen seen ay schéma créer ay idée de itinéraire wala xam nga professionnalisme nga ñoo di ko quoi. mais non c'est pas Wally de le faire aussi. kan moo ko war a def. Ah, ñoom parce que ah. moom lim man rek mooy jël leen dénk leen sécurité am dénk leen boppam. mais ñoom nag ni ñuy def ba aar ko wala fi ñuy jaar ñoom ñoo koy war man bi may wax vidéo bi bi ma koy def dama dama dama dama cité direct ñaari nit. kan ak kan nga yoo xam ni ñoom ñoo war a jël seen ay responsabilité dajale staffu sécurité waali bi yëpp ne leen yéen ñëpp diw mii mooy seen chef topp leen ko di ko déglu diw mii moo ci topp lu diw mee wax diw mii yoo ko wax la ca des ñoom ñu organiser ko seen bopp man loolu laa gëm. yow kan ak kan nga cité woon. non Kodo ak Amdi ku ci nekk ci ñoom chef nga ak yeneen chef nag yaw ñoom yow xam nga ni ku ci nekk ci ñoom sa seefu bopp nga. say mission bu yow eh seen xelu bopp ci ngay doxee dama ne. ñun moom ñoo nekk fu ne ma gis ni Wally bu wàccee si oto bi bu dee nag noonu la ci métier bi nga wax ma damay gis ñoom sécurité si ginnaaw la nekk naan nii léegi mais danger bu jógee ci kanam daw ci Wally ñoom balaa ñuy tourner est-ce que duñu accéder ci Wally. waaw léegi xam nga tey mooy li ma lay expliquer nit. dafa loo xam ne man tey su ma nekkoon ci wetu Wally comme agent de protection rapproché war a bokk ci sécurité am d'abord bi njëkk bi may njëkk a xool li may njëkk a dund man Zal donte sama frère la donte lu baax rek laa ko yéenee donte damay bëgg yàlla defal leen jàmm ñoom ñëpp mais bañu ma du bañ mu mere ma na ma meree wala mu dàq ma wala bu may dàq mu mere ma mu mere ma ci dëgg bu may dàq dàq ma ci dëgg parce que ginnaaw fans bi ginnaaw xaritoo gi ginnaaw lépp dafa seet sama métier bi ma jàng mën ko mu ne ma kaay nekk sama wet di ma ko defal kon ci biir métier boobu noonu man du ma bañ waali mere ma wala mu sikk parce que dafa am loo xamante ni si tey bu mbooloo mi baree ba bari mu choisir ma ne ma yow lii mooy sa rôle rôle boobu dama koy def ba mu mat ba bu ma ciy am waaw góoram mu xam ni li ma def tey waaw góor bi dama ko mérité mais li ma leen di lancer waat comme message mooy ñoom nañu defaruwaat parce que sénégalais yi ñoo teg seen bët waali amagul sécurité normal ginnaaw yàlla te bari na responsabilité yoo xam ne ci kaw chaîne moo koy jël boppam te ñoom sécurité bi gisaguma responsabilité boo xam ne dañ koy jëlal seen bopp mais parce que ñi ngi soor ni bu ma defee bu ma téewee kii wàlli mere ma wala bu ma dàqee kii wàlli mere ma wala kii bu ñëwee pour def naka sudul noonu ma téye ko wàlli mere ma nit boo xool mu mere la doo def doo def dëgg ñoom seen liggéey wàlli bu mais wàlli am na mat gu toll ni kaw seenam ku ko neexul doo yëg waaye ñoom nañu am mat gu toll ni kon képp kuy bët doo jaaroo ci bunt bi mais doo ak koo mën a doon ni nga fexee ba bëtt ba yéeg ma fexe ba toroxal la ba ñëpp xam ni yow da bëgg a yàqal ma man man loolu laa gëm. léegi fi may ñëw mooy bi nga defee vidéo bi ah ñëw nga baal nga baal ma euh, li ma bëgg a li ma bëgg a laaj Zal euh, lu am solo la yow mii nga xam ne yaa ngi indi ay euh, ay revendication ci li nga xam ne ci ñuy waa sécurité Wally ñoom ñoo ngi nekk seen liggéey ñoo ngi koy def ni mu ni mu warutee ñu war ko defee noonu yow mii exactement nga xam ne garde rapproché nga am nga expérience ci liggéey bi lool ñëpp ràññee la ci lool tamit nga jaar fu ne ban stratégie nga mun a teg en place ba ñii nga xam ne ñooy sécurité Wally Seck ñoom ñu assurer intérim bi à la norme. stratégie bi may teg daal ci ñi nga xam ne ñoo yor sécurité Wally muy ñoom en personne d'abord li ma bëgg ñu njëkk koo def muy message bu ma leen di lancer mooy nañ fexe ñu dajaloo ñoom réunion waxtaan. parce ngay wax nii lu am solo la. bu fekkee ne sax Wally dégg na ko sax mu mun ko jëriñ mu taaj sécurité am mettre leen en place ba ñoom ñu ne leen idée ZAL bi moom laa bëgg mu convenable ba ñoom ñu war ko mun a appliquer aussi. waaw léegi man d'abord ci loolu sax ci vidéo bi ma njëkk a def ba tax tey mu demee nii am na ñoo xam ne dégg naa leen sax ñu ne li mu bëgg mooy nekk ci wetu Wally pour pour liggéey fa ma leen di lancer message loolu taxul tamit ngay wax bëgg Wally wala jël la nga nekk ci wetam est loolu taxul ngay mbay man maa ngi liggéey te su ma bëggoon nekk man ci wetu Wally pour liggéeyal ko sécurité du xaar mu woo ma parce que am naa sañ-sañ man ñëw liggéey ci moom par force parce que Chérif Abdourahmane Fall Tilala la ñu àndee bi njëkk beneen bi ci topp ni ko sénégalais yëpp bëggee ko bëggee ñi nekk ak moom man Wally maa ko gën sax bëgg boppam moom man maa ko gën a bëgg boppam barki ma du Bamba dama am ci moom cofeel boo xam ni du cofeelu dara xam nga lan la yërmande man dama ko yërëm parce que li tax ma yërëm ko yërmande googu moo dem ba tal ba nattu ma bëgg ko bëgg goo xamante ni say bu ma soñoon du am dara lu koy naqari moom ñi mu nekkal nag ñëpp man ku ma xam-xam ni soxoruma yéenu ma kenn lu bon du ma wax lu ñaaw du ma ko def mais am naa droit bu erreur amee ma wax ko ñoom nag message ma leen di lancé te war koo def mooy stratégie bi ñuy def mooy bi njëkk mooy fexe woote ñoom ci seen biir tëju fu kenn dul fekke du waali du kenn waxtaan ci seen biir xool li ne ci seen biir ci lënk-lënk ñu dindi ko teg ne le d'abord beneen bi ci topp mooy. est-ce que bi muy wax ci seen biir bu amut est-ce que loolu dina mën a am. waaw ah, la laa. <laughs> loolu laa. à 100 pour cent. dafa mel ni ku leen jege mooy wax. parce que Zal lu wax nii kenn mënu ko dindi. man damaa bokk Faramareen damaa fesul mais dama faa bokk ah, man dama bokk Faramareen à cent pour cent mais dama ne li ma bëgg ñu njëkk koo def d'abord ah. ma yeggali ah, mooy nañ tëju ñoom sécurité bi nag laa wax man mhm. waxuma ak Waly waxuma ak Ndiogu Mbaye waxuma ak waxuma ak Ndiaga sécurité bi nga xam ne ñoom la Waly choisir ñu nekk nombre de personnes ñoom xam nañu ñan la nañu tëju d'abord li nekk ci seen biir xol yi ku ci ne li nga jàppal sa morom nga génne ko teg bi njëkk deuxième bi ñu organiser wu ñoom ci seen biir di xool ay terrain d'entente yoo xam ne buñ ko trouvé li tax nit ñi di jàpp ni defuñu seen liggéey dootul am beneen bi ci topp ñu fexe wut njiit ñoom ci seen biir te seen njiit boobu ñu dégg ñu déggal ko ci déggal boo xamante ni si lañ koy déggal dégg lay doon ca la leen boole parce que à part service bi ñu bokk ku ci ñoom da am sa bopp da am sa liggéeyu bopp da am ci yeneen yoo nekk yu lay may domaine bu lay may xaalis mais Wally mi ñu bokk ñoom na ñu xam ne ñoom nekkuñu fa pour seen bopp ñun sénégalais yi lañ fa nekkal te produit bi ñu yor di ko aar ñoom moomuñu ko ñun nag ñoom ñoo ko bokk donte nag ñoom ñoo ñu gën a jege te olof nee na lu gën a jege gën a yay mais nag boo yeyee ba noppi dangay fonk li nga yor fonkule ko ñu la ko dénk kon ñoom sécurité bi na ñu doon benn nañu déggoo nañu defaraat seen toogaay nañu organiser waat te xam ni lii nga xamante ni si maa ngi leen koy wax waxuma leen ko ngir bañ leen du ngir jéppi leen du ngir bëgg a ñëw nekk ak ñoom pour continuer pour liggéey ak ñoom du bëgg a jël seen poste du dara du teg bët gu ma leen teg bët déedéet ay faay la yu ma gis xam ko ñoom ñu xam ko xam ni mu leen di dal bari na te bugguma tey loolu lenn lu leen jam parce que lu leen jam jam ma man ndax bu dul dara samay frère lañu ñu xamante ma ak ñoom séq jàmm séq lu rafet lii ma leen di wax nag dëgg la boo xam ni mënoon naa leen woo ku ci nekk si ñoom téléphone parce que tey koo woo wax ko suba du ko wax moroomam su ma woowoon tey am ne ko defeel nii ak nii mën na koo yamale ci Kodo mais du ko wax ñi ci des su ma woon tey Kodo wax ko ko ne ko defee leen nii ak nii na ko yamale ci diggante mag am ji du ko wax ñi ci des. daa ay kalan ci seen bari na ci. eh dama ne bari na ci te ñoom li ñuy nekk di ko aar no moomuñu ko de moomuñu ko de nañu fonk li ñu nekk fonkule ko sénégalais yi te xam ni tey Wally bu exemple bi ma lay jox fii ñu toog place Ketchup keroog bi muy ñëw. àndul ak benn sécurité yéen journalistes yi yéen fa nekk di ko buuxle ak ñun ak Fadam ak gars yi et pourtant ñaanu ma ko yàlla bu ko fi dara daloon tey lan la ñuy laaj ana sécurité ba fu ñu nekkoon. léegi nag am na ci loo xam ne sa leadership yow yaay jël say responsabilité wu bopp yi nga koy aaree donte xam nga ni woowuñu la ne la waale day dem fee mais yëg nga ni dafay dem jiitu ko. bu ñëwee fekk la fa xam ni yow sa ngay def bul xool ni su ma ko fi jiitoo bu ñëwee bu ñëwee mën na maa meree ñoom tey li leen doon waroon mooy xam nañ ni waale lu mën a xew wax na leen buuse dem na fa ànd ak ñoom Sidi Diop ñu jot message bi waali ne leen dinaa ñëw ci immigration bi donte waxuñu leen ko li leen waroon ñoom muy seen rôle mooy jiitu si ko fi bu ñëwee fekk leen fii non ba fuñ mën a nekkit dama ne bu fuñ mën a nekk Mbuur ak Dakar soriwul man kilifa yi ma jot a jaar liggéeyal yëpp bu man la doon liimal du jeex te kenn ku ci nekk bonne conduite laa fa jëlee man. foofu laa bëggoon a ñëw ki taxaw ki internet bi seetaan te xamul Zal moom mooy kan ba war a taxaw di corriger sécurité waale waaw. lan la mooy nit koo xamante ni si dès le départ ci carrière benn métier la ci masa am bi mu jàngee école ba CM2 classe ndaanaan bi mu jàngee école ba CM2 classe ndaanaan benn métier la mës a muy protection rapprochée sécurité nga xam ni bi ma koy jàng ba léegi may wax ak yow lépp lu may am ci laa ko bëgg te lu ma amit ci laa ko yaakaar lu ma amagul. man sama mi sama dund gépp kaaraange laa ko jàng jaar ci ak ay kilifa yu bari su ma doon liim du jeex nekk naa G15 ak le directeur des études bu g seeni Seyni jaar naa ci directeur général bu Sogas Arona Ba dégg nga ma nekk naa ak le président Abdoulaye Wade jaar naa ci équipe bi président Macky Sall mi jaar naa ak moom Ousmane Sonko mi en deux mille en deux mille dix-neuf bii j'ai été avec lui boole ko def ay formation yu bari te lenn lu ci nekk bu ma la ko waxee. preuve yaa ngi ak man te dinaa leen ko jox ngeen dugal ko kon lii may wax nii ma liggéeyu menuisier ma ciy wax fekkuma soudeur ma ciy wax damaa fekk li ma jàng bokk kook ñoom ma ciy wax kon li ma leen ciy wax ñoom xam nañu ma xam naa leen waxuma ko ngir tuutal leen waxuma ko ngir doyadil leen waxuma ko ngir mais dama leen koy wax ngir soññu leen parce que tey bu ñu leen jamee jam ma te lañ fa bëgg tey bu ñu fa amee ndam ma am ndam gannaaw ba nag man bu ñu amee ndam ma am ndam erreur bi nga xam ni maa ngi koy gis mu jëm ci seen kaw su ma sañoon tey du agsi te li tax mu bañ a agsi mooy ñoom ñu taxaw doon benn Zal nag fii la dëkk ci dëkk bi jaar ci service yu bari ci sécurité jaar ci service yu bari ci protection rapprochée jàng ko mën ko maîtriser ko ba jàngal ko ay nit kon tey lu mën a xew Zal Touré bu waxee ñi ko xam dëgg xam nañ ni kii li mu wax maîtriser na ko te ci la bokk. am di génn tontu la am yi mu wax dégg nga ko bi nga ko dégg. waa am di am di li mu wax je suis parfaitement d'accord ak moom parce que am di dégg naa ko mu ne euh, ñun d'abord. Wally suñu frère la lu jiitu ñu koy sécurité dëgg la mais sa frère bi nga bokkal ndey ak baay tey boo koy sécuriser mooy yaa ngi sécuriser sa bopp waaye nag euh, frère yóbbuwu leen ci Wally d'abord dégg naa sax ci commentaire yi am ñoo xam ne dañ ne Wally yorul ay garde corps ay fans la yor nit boo ko fanwee doo ko garde nit boo ko fanwee doo ko garder munoo ko garder parce que tout le temps yaa ngi xool style am yaa ngi xool moddam yaa ngi xool ci li mu nekk ba tax nga fàtte yow li la booleek moom kon am di foofu mën na ko dama ko wax ni ko yow am di euh, Wally sa frère la sa patron la parce que donte magam nga yaa ngi am ci ñaqam kon li ma lay wax mooy concentré wul jël frère gi ak mag gi teg ko ne le concentré wu ci sa rak xam ne am na ay noon ñoo xamee ñu ko bëgg ñoo xam ne tey bu ñu sañoon dara du ko dal waaye am na noon yoo xam ne bu ñu sañoon tey du fanaan noonu yooyu nag war nañoo tax yow am di nga takkuwaat dajalewaat équipe bi comme ne nga yaay porte parole bi waxtaan ak ñoom ba doon benn beneen bi ci topp dégg naa ko mu ne Zal xam na ma dëgg la am di xam naa ko de xam na bu baax dafa juum sax moom dafa juum xam nga lu mu juum dafa ne Zal ñoo bokk métier bi d'accord ñoo bokk métier bi mais métier kese lien wuñu ma ak moom am di sama deret la am di sama deret la comme ni Kodo nekkee sama deret Thierno Gadiaga sama mag la moo ma yar mu bëgg mu bañ sama mag la Fifty sama frère la Bayla sama frère la non amul jàmbur boo xam ni moo jugee fee ci àll ba ñëw di wax ak ñoom déedéet kii wax ak ñoom seen frère la lii mu leen di wax nag mook ñoom ñoo ko bokk léegi nag comme ñoo ko bokk te ñoom ñoo fa ne damay bëgg du ñu am loo xam ni da leen di dal beneen bi topp dégg naa ko mu wax ba rentré ci affaire u euh, fii sécurité wàll yi kenn ku ci nekk ci ñoom appartement bi nga jël deux cent mille on parle de métier on parle pas de vie privée ñoom sécurité yooyu bu ñu dee fay appartement deux cent vingt et loolu du yoon xam nga fu ñu toll ñoom ñu waroon wax ni tey ñoom ñii ñëpp kenn ku ci nekk immeuble bii mu tabax dëkk ci moo ko moom te métier ma ko ko may te loolu laa leen yéenee man tey su ma waali fu mu dagg kër ñoom ñu dagg faja des dend ak moom parce que loolu mooy mérite bi donc nag dégg naa ko mu wax yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne bëgguma cee rentrer à pour cent mais message ma ko wax daal moom en ko am di dafa dëgër bopp xam naa ko te mi ngi génnaat. nekk guerre seen diggante. na eh pare naa pour bu loolu. ah moo doo man bu safu xoola na saf waxuma la mondial de na nekk. voilà ba pare teg ci dafa dëgër bopp xam naa ko mi ngi génnaat. Ah. mais boo génnaatee 1000. ma génnaat 100. boo ne xoola boo laalee kubéer gi ma dem ci taatu ndaal yi. Ah. léegi nag comme foofu lañ toll. barke arxuraan fekk ñi ngi taxaw ñoom. Ah. di def lu baax. ci seen métier suba bu normalé maay génn wax leen ni normal na choc mais bu subaa buñ defaatee erreur de plus barki Serigne ba ma génn waxaat leen de pire te nag nañ doxal xam naa leen dañoo dëgër bopp dinañ tontu waaye bu ngeen tonto maa ngi leen di xaar may lancer waat message nag ni zénith bi daf ma ñor zénith bi ça m'intéresse daf ma daf ma ñor parce que xale mooy dem te fi muy dem mi ngi fay soog a teg tànkam te dafa wax ñëpp ni yéen laa ci yaakaar muy siidi ànd ko gaynde goo xamante ni si jàmbaar la ci Sénégal muy Matar Diop suba teel Matar frère la nit kuy jàpp ci développement wu Sénégal la mataar nit ku am valeur la nit ku bëgg sénégalais yi la na nit ñi génn ngir yàlla ak yonent bi yéen ñi nekk Europe di ay sénégalais dem leen fu ngeen mën a nekk ngeen jël métro yi ngeen dem dooleel Sidi Diop. cinq heures trente war na leen fekk buntu Zénith ñu ubbee saat bi ngeen duy ko mu fees dell sii di génn wayal leen am fa ndam ñibbi si waat Sénégal ñu ànd feetandoo ko continuer maa ngi waxaat ñëpp nañ ma baal àq waxuma ngir luy yàq waxuma ngir luy féewale mais damay wax ngir loo xamante ni Sénégal rek moo ñu ñor te ñun tey bu ñu sañoon kenn ku ci nekk domaine boo nekk di ci yëngu danga nga am lu baax comme nag lu baax la ñu yéene ñëpp kon tey bëgg nañu nit bu nekkee ci lu baax ñu waaye bu juumee di def erreur ñu wax ko ni ko erreur yi lii la ak lii ak lii donc nag bu doon lu ñu war a wax ci biir néeg dama leen di woo waaye lii lu ñu war a tàcc ci pénc la te baa pénc mee ko bokk dernière bu la Wally Seck woowoon dénk la sécurité bi mu ne Zal yow li ngay wax ni am na solo trop bëgg naa la dënk wàllum sécurité nga nekk seen chef ndax loolu di nga ko agir ndax di nga ko jëfee normalement comme ni nga ko bëggee aussi man su ma toogoon Wally woo ma ne ma kaay jël sécurité bi nga jiite ko dama ko naan duma ñëw parce que ña fa nekk mate nañ ko ña fa nekk mate nañ ko sëkk mën nañ seen liggéey sëkk dafa am lu des lu ñu leen war a soññuwaatee corriger leen ci ba tax erreur yi am dootul am mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tey mat ngaa mën ngaa gardem réew parce que loolu lañ jàng muy seen option kon tey man Zal su ma waali ne woon kaay jël sécurité bi ne ma kaay diriger ko duma dem mais li ma mën mooy ñoom tey ñu jiitu ma topp leen waaye gis loo xam ne da leen di faxastal ma ne leen moytu leen lii moytu leen lii parce que ñoom ña fa nekk mën nañ ko mate nañ ko mais Zénith bi daal ñor na ma intéressé na ma parce que bëgg naa suma frère Matar am ndam mhm. bëgg naa mu mu mu réussir bëgg naa it mu mu mu am ci ndam loo xam ne ndamal Sénégal la te jiboo yi nag neex na na continuer loolu moom ku ciy wax dinañu arranger ndax euh, Zénith bi moom ku ko xam xam ne Matar suñu waay la te communication bi ñu ngi ci booba ba léegi bëgg mu am réussite totale bëgg mu am ndam ndax Sidi bu amee ndam ñoo am ndam comme ni nga ko waxee ak suñu frère Matar Diop suba teel mbokk yi béggoon nañ doon jàkkaarloo ak yéen Zal la woon bu ëllëgee ñu xoolal leen keneen jërë ngeen jëf Les femmes sénégalaises de Bilbao présentent Wally Balago Seck à Bilbao. Attention, Bercy Bilbao le juillet. Fan la Santana 27 Fever Bilbao Vizcaya. Co-organisé loolu ñu ne Fama et Rama doomu ndeyu Penda sponsor officiel restaurant Tangana PDG bi di Soxna Khadi Fatou Cissé Madame Sall responsable Ami Salam marraine yi Kër Belma boutique PDG ba di Fatou Dia parrain ba Rosa Zaher Diabira restaurant La Saint-Louisienne PDG ba de Bijou Mbayang Khoulé Dine Khoulé ASC Bakhyaay présidente ba di Anta Ndongo Touba Cosmétique PDG ba di Fatou Seck restaurant Sénégambia responsable ba di Astou Cissé restaurant Baobab responsable ba di Maman ASC Teranga président Abdoulaye Wade ASC Bassori présidente ba di Binta Ndiaye les astuces de Ramitag PDG Ramachoun alimentation Mamdiara DG ba di soxna Aram. kër kër yi le ndax yi waaw mille du wàcc borom Wally Balago Seck à Bilbao le 5 juillet 2024 infoline 34 63 22 97 541 34 60 28 14 193 wala 34 63 28 29 272.